bay projet ba nga xam ne war nañ ko def pour liggéey ko kuréel bi ko def léegi. Hmm. surtout nag réduction des comptes. réduction des comptes c'est important. Ah. am na solo bu baax euh, oui. soxna Ndeye Assou maa ngi mu tudd ñoo xam ne dafa am lu ma fàttali. mooy lan tudd na euh, Pape Djibril Fall. Pape Djibril Fall. tudd na Barthélémy Dias daa am si benn action boo xam ne tey la xew sànq noonu dafa ma ko fàttali xam nga suñu borom da ne. waaw faxalun li ma yurit. maanaam man yàlla maay def li ma neex. suñu borom. Mhm. mooy def li ko neex man ngaa mais li moom mi am ndogal mooy def li ko neex te jàmm bi yow mënoo ci dara. Hmm. yàlla mii xam ne moom mooy def li ko neex moo def. Mhm. pasti valda bi ñuy tudd nii. waaw pasti bi. ñoom bañ nañ de. Mhm. mais seen xol moo bëgg ba jënd pasti valda ñoom ñaar ñu ànd photo wu ci. kan moo jënd pasti bi Pape Djibril Fall ak Barthélémy Dias. Ah. xaar ma wan la ko mu ngi nii. ñoom ñaar ñoo sax sûrement war na ko am. parce ah. viral na. waaw parce que ñoom ku ci bëgg siw ku ci bëgg ñi Sénégalais bàyyi la jox la xel. waaw may la bopp gis nga. ah kii Pastivalda la jox Barthélémy ak ak ak. ak Pape Djibril Fall. ñoo yor Pastivalda. Pastivalda lañ mujjee jënd. Hmm. wan Sénégalais yi ne suñu xol tamit nangu na. wan Sénégalais bañ bañ nangu président Ousmane Sonko. soo bëggee Sénégalais yi bàyyi la xel. Hmm. ci réew mi faaw ngay def li muy def. réew mi. bu fekkee da nga bëgg Sénégalais yi bàyyi la xel ah ma zoom ko gis nga. waaw réew ne. viral na maanaam ñu ngi koy partagé fépp. Mhm. muy Pape Djibril Fall foofu ca Medina. Mhm. Pape Djibril Fall. oui ah très bien sa résultat am nañ ko gis nga Pastival daaw ngi. waaw gis nga niñ ci ànd ak mbégte. Mhm. parce fii xol bay wax. jëmm ji mën ngaa bëgg bañ bañ nii nii de mais xol bi mooy wax. xol bu waxee di nga jëm jëndi pasti valda te boo jëndee pasti valda di nga ko ñam reetaan tàkkamti ko te boo reetaanee di nga won population bi ne ndekete lii saf na wane reetaan mbégte ku ko fi indi président Ousmane Sonko. Sidiki Kaba maître Sidiki Kaba. waaw keroog solu fu yëre Ousmane Sonko. waaw sol na ko. ak lu mu yàqul Ousmane Sonko amul solul keroog yërëm. cuub bi cuub bi parce que dafa bëgg sànce génne gaa xale yi ne ko sànce nga gis nga. Mm-hmm. daf ko bëggoon a sol génne xale ne ko sànce nga. Mm-hmm. moo tax ma ne la. Mm-hmm. li bañ bañ nangu jëmm ji mën nay mën ngay génne di yor sa làmbañ di wax mhm. mais xol bi fi muy jëfee doo ko sax yëg des fois nit sol yëre génn ndekete man lii laa sol sa xol ba mu koy sol yëgoo ko Passivalda bii nii nii nii nii nii koy jënd di ko tàkkamti ko ba ciy foto photo wu di ci bëgge fàtte nañ affaire de politique ñu ngi ci mbégte mhm. mbégte moo xam ne ki ko indi du kenn ku dul président Ousmane Sonko buñ paree nag ba gis ni mu virale gis ni ko ñu ni commenté la ñuy door am leen metti Mm, rendre ñu ci compte donc déedéet sonko sonkolu gi ñëpp koy def. ok sonko sonkolu gi. waaw ñëpp koy def ñëpp koy bëggee. moo tax keroog ne woon naa lu mu laal mu am barke. jàppoo yi ne moo leen ci dugal ruube mosu leen àndal ruube mosu leen see dugal li ma la waxoon keroog. waaw tey instant yi képp boutique yi di jaay Passy Valda ñëpp kontaan. Mhm. pharmacie yi koy jaay yëpp ñëpp kontaan. Mhm. parce que dafa jar. Mhm. koo xam ne lu mu laal mu am barke sunu borom moo mën a may. moo tax suñu boroom ne la man li ma neex moom laay dogal. bañ ko yoree sax dafa mel ni dafa am leer gu nekk ci ñoom. ndax dafa am leer xanaa gisoo ñoom xam nga ñoom ñii leer amuñu woon ak leer parce que Pape Djibril Fall leer gi newoon ci moom dem na bu yàgg dañ na bu yàgg ba mu commencé dugg ci ay sos. Hmm. di sos rek. d'accord Barth moom ak leer mosu koo topp. comme tey ji li ñu yor nii ku sell ki jàllale ko. waaw ku sell ki utiliser ko. population yëpp di ko utiliser. Hmm. ñoom ñu bëgg bokk ci mbégte mi. dañoo gis ne Sénégal ñëpp ay béggee Passivalda bi ñëpp a koy béggee ñoom ñu ne tamit bégg gi dañ ciy bëgg dugg mbégte mi dañ ciy dugg fii mu ne campagne lii du campagne de li ñu toogee nii. Mm. campagne loolu du campagne dañuy enjoy mbégte mi ba pare door a campagne. lii. ku ko yor. Mm-hmm. dinañ la bàyyi xel. lii ku ko yor boo photo say foto dina bari vie. Mm-hmm. moo tax mu ne jamono ji ku bëgg ay vie si ñoom si opposition. soit da ngay def li président Ousmane Sonko di def. wala ngay tudd turam. effectivement. lu mhm. borom moo mën a maye. foofu moo mën a maye. bilaay wala euh, tonton nga ne lan ci photo bi. waaw ça veut dire que man damay gis euh, euh, Ousmane. waaw nit ka nga xam ne par exemple dafa si ay déguisement ci déguisement day day gën a renforcer l' artisanat. l' artisanat surtout boo xoolee par exemple yi muy sol. moom la léegi moom la nit ñi sol. effectivement chemise yi. cub bi di waa ni cub bi. Mhm. léegi par exemple mode la ba nga xam ne par exemple chemise yu la. Mhm. te gaa te gaa ko ñëw. boo gisee tenue traditionnelle yi muy sol. mais yooyu yëpp dafa baax par exemple. Mhm. si artisanat bi. waaw da ko da koy da koy jëmmal quoi. voilà donc nekk na ay nga xam tey boo ko doon évaluer tey économiquement. di nga gis ni rentrée bu baree baree bari jóge na ci yenn kii dem ci biir si kii artisan yi. waaw la femme de Diomaye tamit gis nga ko ni ni ni ni muy solo oui donc gis nga boo ko dee évaluer tey économiquement yaa ngi mhm. dégg di mhm. dina jox benn kii ba nga xam ni mhm. par exemple da xam ni lu bëree bëri pem nag gaa nit ñi bàyyi nañ ko te dañ koy gën a démystifier nag eh, ci kanam la jëm ay saag yi gaa yi ñuy jënd un million yooyu léegi mu jeex léegi semis yi cuub yi mooy xew ah tenue traditionnelle yi mooy moom mooy parce que ñoom ci loolu lañ ni woo te mhm. loolu lépp nag aussi boo ko dee xool. Mhm. mi ngi ci biir projet bi ah. mi ngi ci biir projet bi. projet bi kon donc li mu ëmb bëri na lool mhm. lool lool. mais man daal Cheikh Tidiane lii maa doon doog a gis nag photo bi. ah yaa doon doog a gis waaw maa doon doog a gis sérieusement. ah non mais xoolal kaaw beñu dugub ba. mu hmm? ngi noonu beñu dugub tey tey billaay boo leen xam ne dañoo kontaan. société la ba nga xam ne lii mbégte la Val d'Afrique. ñëpp xam nañu ko mu nekk <laughs> ko gëj gis ci Bart. Ah, sourire bi waaw sourire bi gëj naa ko gis. ngi mi a ree. Hmm. ci mu ngi doog a ree c'est ah, vrai ah. Bart mi ngi moo leen reetaan loo mbégte mi la de. Bart mi ngi doog a ree mu ngi doon ree de ah mbégte mi la de ah mbégte mi ñëpp ci profito mbégte mi président Ousmane Sonko mi ñëpp ci profito mhm. kañ nga ko doon xam suba mu laalaat leneen mhm. wala tey ci guddi campagne bi muy def wala meeting bi muy def mu tuddaat beneen wala mu utiliser waaw na wax ci uh, kii Allô Sénégal bu ko defee ñëpp dem ah. abonné ci compte Allô Sénégal ñu ngi ko ciy xaar loolu tamit am na solo bu baax a baax a hmm. baax laata loolu aussi yéen ñi nga xam ne yéen fi nekk ci abonné goo leen ci compte Allô Sénégal dem leen ngeen abonné ci compte Allô Sénégal ngeen di liker di partager vidéo yi euh, parce que loolu mooy suñu force suñu avancé jëm ci euh, Adama fàll mu nga xam ne rek daal nañ ko convoqué fii ci euh, cybercriminalité ce lundi 11 novembre kañ la woon lundi le lundi 11 novembre. lañ koy convoqué lañ koy convoqué ce lundi 11 novembre 2024. Euh, li nga xamante ne nag moo sabab loole euh, fi ñu tollu témbee euh, amaguñu ko waaye nag daal dina jotub convocation war a fas yéene wuy ji nekkee lundi ginnaaw suba incha allah le 11. fee ci cybercriminalité moom nag ñu fàttali ne responsable APR la woon moom moom la sax ba tey moom di Adama Fall Cheikh Tidiane ma bàyyi la it nga addu ci loolu. ci convocation boobu mu war a wuy ji lundi incha allah. genre Adama Fall ñoom dañoo nekk ay danger fii ci réew mi. ay danger waaw ku dangereux mooy mooy Adama Fall. lu tax nga wax loolu. parce que ay wax yu ëpp rek lay wax surtout di ko jëmale ci kaw si si Ousmane Sonko. Mhm. mooy coalition bi xam ne ñoom dañoo bañ bañ Ousmane Sonko bañ loo xam ne seen xol la jóge dañ ko bañ. Mhm. moom Adama Fall si la bokk. temps yi dama koy gis si benn chaîne chaîne u Aïssatou Diop Fall ñoom ñaar ñu fay toog di wax lu leen neex. Mhm. ñuy wax lu leen neex. xamul ne Aïssatou Diop Fall mi xam ne daa geer geer yëpp. Mhm. daa dugg ci yëpp. bañ yàpp ko di ko woo en direct di ko tuddal ay leneen leneen kooku nag moo moo lay woo ci palaato dugal la nga dugg xaw ma lan lañ ko convoqué nag mais ay wax yu rëy lay doon. Ah, parce que moom wax ju rek lay def. fu plateau bu mu dem wax ju lay wax moom Adama Fall fu mu dem dina diffamer dina def ay. Euh, diffusion diffusion de fausses nouvelles man ay injures sax mën na ko cay dugal. parce que xamuñu seen bopp dañoo reew dañoo réew te faaw yoon dal seen kaw xamuñu ne dëkk bi la woon dafa won ni maanaam justice mooy dox ci réew mi jamono ji. Mhm. justice balaa nga koo xam nga wax fi loo fi war ta wax. rawatina nga jëmale ko ci ay kilifa yu mel ni président yi wala premier ministre Ousmane Sonko dañ lay convoqué. Mhm. parce que Arame Fall sorteem yëpp sorteem yëpp day yàq Ousmane Sonko lu ñaaw sorteem yëpp amul benn vidéo booy seetaan boo xam ne du wax Ousmane Sonko lu ñaaw. Mhm. mais trop c'est trop comme li ma la wax sànq xam nga tey ji Adam Fall nekkul candidat ci législative yi autrement dit que ne amul immunité mhm. des fois ñoom dañoo mel ni ko con parce que dañuy toppandoo candidat yi te ñii dañu am malaayu kiiraay très bien ñoom dañuy toppandoo candidat yi de fait de ce fait que ñoom li candidat yi di utiliser comme ay termes ñoom la ñuy uti moom la ñuy utiliser te xamuñu ne ñooñu dañoo am immunité te ñoom amuñu immunité mhm. tey jii boo man nañ la ci mën nañ ci woo mën nañ la ci woo bien sûr xam nga la moo tax parce que même li ngay wax sax bu amoon comme ni ma la ko waxee sànq même li ngay wax sax bu amoon mm-hmm. période bi période de campagne la te président Ousmane Sonko kilifa la ci réew mi mm-hmm. homme public la rawatina mu nekk premier ministre du Sénégal mm-hmm. booy wax loo xam ne dafay ay sos nga koy teg pour déstabiliser sa campagne mën nañ la cee woo rawatina moom kàddu yi muy faral di yëkkati g naa nag ne mu ngi jooytu fépp ne dañ koo convoqué xam nga ñoom suñu leen parce que dañuy def poste xamal ne dañ leen convoqué pour bëgg ñin yërëm leen mhm. yërëmtalu lamante fii pour bëgg ñin ñi fekk si leen fa ku dina laaj Kader Kader Dia Kader Dia ku weddi laaj ko moo tax boobu ba léegi mu ngi mesurer ay parole xam na li muy wax léegi mu ngi commencé nit nit lu mhm. parce mu ngi xam li muy wax ak la mu war a wax mhm. saa yi fee bu la fa yóbbu kenn du la seet si gars dañ la fiy bàyyi dem yeggal seen campagne ah, gis nga ñi ngay waxal pour ñu pour ñuy kontaan ay Amadou Ba ñi xam ne ñoom ñoo tax ngay wax wala ay Macky Sall mii tax ngay wax loo xam ne dafa ëpp wala nga nga insulté fi wala nga def injure publique wala nga diffama fi wala nga joxe ay fausse nouvelle non dañ lay woo buñ la woowee ba xam ndax Amadou Ba da la fay fekk buñ la woowee ndax Macky Sall day jóge foofu ca Maroc ku man ku mën ku nekk tëdd liste mënoo jóge marok ñëw campagne nan la ñuy jàppee kenn nga naan da koy dimbali am nga ay caaxaan <laughs> xam nga loolu lan nga ci jàng lu ma ci jàngat mu ngi mel ni nga topp sëriñ boo xam ne fii ci àdduna nga topp sëriñ boo xam ne boo duggee ci bàmmeel mënalu la dara mhm. topp nit koo xam ne nga bàyyi say wéyjur topp nit loo am jox ko mhm. foo génn ci réew moom ngay tiitaroo mhm. booy waat sax elekoon nga jiital suñu borom moom ngay jiital nga dugg ci bàmmeel mënalu la dara mooy lii nga toog ci plateau yi di saaga président Ousmane Sonko eh. lan moo lan nga ci jublu pour lu neex Macky Sall lan nga ci jublu pour lu neex Amadou Ba eh. léegi nag buñ la woowee ba tëj la ba xam ndax kenn ci ñoom dala fay fekk ba xam ndax kenn ci ñoom